Mhm. waaw papa boppam bi génn moo tax bopp papa bi génn ci biti mhm. moo tax boo bi am taawu busulu ko busule ko mhm. mais papa bi muy song bu jëloon boppam teg ko ci crise bi mu féete ci biir non du ko mun def loolu mais est-ce que papa jubalu kon c'est tam ko tamit boo xoolaat son bi non papa moo daw ñëw jàpp tànk bi génn bopp bi bi def benn pas tël ko te boo soolaat seetaanee film bi noonu la demee Siteu day bëree tànk. moo ko yomb waaw day bëree tànk mais mooy li ma wax tànk bi daf ci xaw a yéex tuuti. Mhm. mais mën na ci résisté ba génti mën nga ko ak fu sori mu fexe ba génti. ok Lac de tamit rasu ku ne xam ne ne daf ko man contre Modou Lo. Mhm. bi mu ko fee tànk Modou Modou taxawul la jéem mu mhm. résister de. dafa dàq ji Modou. boo xoolee ci biir enceinte bi la ko dàq moo daw arrière. mu jëm si côté saako yi. bi Modou xamee ni ñu ngi ak saako yi mu def mbootu taqale ko waaw. boo xoolee moo umóodu te lat nekkul mbër boo xam ne danaan dóoral ma dóor hmm. lat saa boo ko attaqué dóor ay coup de day reculer hmm. dem ci côté di joxoñ goos bi pour téye la mais ay dóoral ma dóor yooyu du ko def hmm. moo tax nekk na combat boo xam ne euh, xel moo koy gagné mais li kiy wax ci Siteu tamit parce que Siteu loolu man na ko lool saa yoo ko dee jëli ci tànk moom da ko mën a la Siteu dafa mën a résister ci tànk bi daf ci mën a résister saa boo ci dalee moom xam na lu muy def bëggee na ci. Mm-hmm. waaye nag man loolu d'accord ma ko. Mm. waaw. wóorul tànk daal mu bett la ci. moo gën a wóor nga naan bu ñëwee nii laa koy def. Ah, parce que moment moment bi muy ñëw du la tàggu. li nga li nga mëne dee ko nëbb. Mm. surtout tànk. mbër bu la ëpp lu muy song moo lay ëpp sens mille sens pour de daan. Mm-hmm. moo tax bëree tànk baax na buñ la bettee nga lijjanti jàng ko ba mokkal ko bu la buñ la bettee songo nga lijjanti. Modou Lo mii nii tànkam bii nii. kan la ko ci daan. bi muy jiital noonu. mais gis nañ fi bala ba bala bala bala juuf bu ko dóor ba mu rëb. Mhm. waaw mu sigi bala songo tànk bi mais daf ko nooju. Mhm. gis nañu fi booy booy bi booy séeréer ba Paul Maurice. Paul waaw. mais Modou du bëre di joxe tànkam gars yi dañ koy bett ak ci rek. Mhm. mais saay boo ci demee day lijjanti ba génn ci loolu la bëre tànk di jëriñ. Mhm. mais doo ko nangu joxe. doo ko nangu joxe. moom Xaadim Diallo. en tout cas combat la boo xam ne ñoom ñaar ku ne daan sa morom mun na daan sa ku ne mën daan sa morom. Siteu dafa bëre ñefe laay fam ba ak ci Lac de Guiers. Mhm. ku ne Siteu mënul daan Lac danga xamul làmb rek. waa loolu itam dinaa ci ñëw a parce que damay la plupart tey ñu bëri dañ ne Siteu mënta daan lag de Guiers la ko ëpp doole bari na ñu koy wax de grand salle am na ñuy wax ne la nga ëpp doole Siteu mënu koo daan Lac bu daanul Siteu ñu bàyyi ko nanga est-ce que wax yooyu tamit wax yu yu wóor la. xam nga Siteu boo xoolee seen forme yi du benn. mook Lac mook Lac seen forme yi du benn. lu def différence bi. li def différence bi mooy Siteu da gis ne njool la ba pare xaw na yokk masse bi tuuti mais dafa musculé mm. boo xoolee Lac.

waaw lat moo gën a yeewu ci xeex. xeexu taxaw xeex taxaw dóorante nii rek. lat moo gën a yeewu quoi. Hmm. lat tamit mën na tuut sa mbër. Hmm. mën na la gaañ mais mënu la sa parce que ne mënu la dóor nga daanu. parce que boo xoolee ay góos la ëpp la muy sànni mais góos da ko cokkaas nii rek quoi. Hmm. boo dalee ci ko mu koy muy tàllal pour na la. mais lat bu début da daan xeex de. waaw ah, mooy la ma la wax mooy li ma la wax début làmbam ndax na mu daan songe début làmbam songeetu ko Babacar. Ah, na mu daan xeexe début làmbam xeex mais mais lat moom ak euh, nees. xeex bu metti la xeex ah, ba suñu père Begaay koy nuyu di ko jaar bam naan ku gën a muus. mais na mu daan xeexe xeex loola taxoon ñu. tuye ko ne poñ de balle waaw mais léegi boo xoolee xeex yooyu defatu ko. moom day cokkaas rek euh, bu jàppanteeg yow mën na plaqué loolu la def yëkkini. Hmm. waaw. loolu la def Yékini moo tax ma ne ci biir combat bi Siteu nay sóoraale loolu plaqué bi palaake et pourtant tamit Siteu day plaqué dañ dañu xaw a bokk bëre foofu ñoom ñaar Siteu day mm-hmm. plaqué kee day plaqué mm-hmm. te plaqué man je pense que ne am na lu koy dindi lu yomb Babacar lu dindi plaqué si loolu du ko wax plaqué lu koy wekki li koy wekki waaw man soo ma plaqué mbër loxo bi ma bal nii aw ma ak moom problème loxo bi bi bi ñëw sama tànk di ko di ko di la kaale. waaw tànk bi moo war a déplacé wu mais bu ñu ko bloqué. waaw bu fa jógul bu fa jógul daanu rek ngay def. waaw wax nga dëgg bii loxo bii mooy ba lalle la. lalle waaw mais bii mooy téye pour bu la lalee doo mën a dem. doo mën a dem loo ko wogal loxo bi rek. moom ngay woggi. man soo may plaqué di ma lalle aw ma problème loxo bii mais bii téye sama tànk laay yéegal nii rek woggi ko. mu yaa ngi may fàttali dafa mu ngi ñëwaat ci man comme maam maam Njambaan ak Tafa gi daa mel noonu la demee. loolu la demee. maam maam maam Njambaan ko sol. waaw Tafa Tafa dóor ko ay. dóor ko ay birgir waaw mu yóotul Tafa woog loxo ba. dóor ko mbot. ok pet. noonu la demee gis nga euh, plaqué loolu rek moo koy dindi. loxo bi taf sa tenu bi ba doo mën a dépassé moom ngay woog rek. xëcc tànk mais lak comme engagement bi mu jël tamit na day dem ci kaw gan gi lu wante xew yow boo doon lak tey ne ko bëri lak Siteu loo koy digal waaw comme mën na def xëy na moom xëy na jàngal na ba yaakaar ne bu defee loolu war na ko mën a war na ko mën a réussir waaw waaye bu mu ko teg ci xeeb ko tamit quoi hmm. non yow mu xeeb waa ji bëggu mu xeeb ko de ah non non bëggu mu xeeb ko li tax ma wax ko mooy waaw Siteu dafa am lu mu am na lu mu mëne te ba pare Siteu ay ngaaka nekkuñ ci ginnaawam. wallaay Père Max Père Max man xam naa ko bu baax. bëri nañu mboppat man ak moom ñetti yoon ñoo ma màggoon. Père Max Père Max daan naa ko deux fois mbapat mu daan ma benn yoon. léegi léegi ay dégol yi dégol nii. ak ñoo ma mag ñoo ma mag ñoo ma mag bu bari. <laughs> la. ay dégol nii bëri nañu trois fois mbapat. mais amul combat buy ak. saa moo ko jékkoon war ko daan dal may koloj wala mu tibb suuf def. <laughs> <laughs> moo tax xale yooyu dañu am ay entourage yoo xam ne. ay du ñu ay ngaaka quoi. moo tax maanaam yéen wër. merci beaucoup moo tax pour nga daan leen. <laughs> il faut nga nekk ay borom bopp comme ñoom. Mm-hmm. Lac de keroog na man tam borom bopp moo parce que moom kere li nga wax ne na ne na Siteu am nga cerveau. Mm-hmm. muy père Max xam naa loolu nangul nañ ko ko waaye man ñi ma wër ñoo ko supéré lim ñoom Mbaye Samb. yaa ngi dégg Mbaye Samb bëri nañ. ah ñoom Rol Sall Mbaye Samb bëri nañ. yaa ngi dégg lim daal. waaw gaa yooyu yëpp ñi ko wër. Rone maa ngi fàttaliku mbapat bu ma tëggoon. Rone Sall. Mm-hmm. Rone. waaw mm-hmm. foofu la ko daane woon loxo bi dam. ma ko yàqal carrière làmbam. 99. voilà merci. nga ne. 99. 99 wax na dëgg. wax na dëgg wax na dëgg wax na dëgg. wax na dëgg. Medina Medina buntu kër yu na dëgg foofu. mais kii ci mbapatam la ëmb seen lukkee ko. merci. Zallo mi. Zallo mi. est-ce xam nga ni ñu ngi wax. Euh, ama seen farba ngom te doon toog ci cumukaayam dëgg la sama mbapat boobu noonu mais comme farba siiwul kon noonu trop moo tax gaa yi xamuñu ko woon ok ci mbapat boobu noonu moom Mbaye Diouf mhm. ñu daal di tegal leen da koy mboot mhm. ñu sol bu mu xeeb booy bi mhm. bu mu xeeb booy bi non bëgguma mu xeeb ko de Oulimata ma ñëw ci yow si euh, ar euh, xeeb ak ëppante doole geeg yooyu parce que ñu bëri dañ naan la nga ëpp